boo xam ne fan yii ñëw muy kii di Waly Balago Seck am yenn sëriñ yoo xam ne génn naan Waly day seet Waly ku dem si. Waly li muy def àdduna yëpp teg nañ ci ba bët day woy di bëggee kenn gisul Waly Seck di sëriñ to wala muy muy muy seet. Ah, woy lay def di bëggal doomi aadama yi di jàppale doomi aadama yi nañu bàyyi jàmbur wax nañoo wax ba xamatul lu nga ñu ne ko seetkat nga eh Sénégal a mën a wax. kooku sëriñ la de. ma ne Sénégal a mën a wax. day seet comme yow li ma la wax la mu dara du ci dëgg man soxna naa ko Wally sekk li muy def ñëpp ngi ciy teg ba day day day bëggee di way di seral xolu doomi aadama c'est le c'est le centre des jeunes loolu la ñu wax ah? centre du peuple du peuple kon nag nañu bàyyi Wally wax nañ ko lu ne waxal nañ ko ko léegi nag seetkat lañ ko jiiñ waaye yow dëkk bee toj lii la mu doon nee na concert bii di ñëw mhm. waa c'est concert bi muy def grand théâtre ku fa dem sa yaram sa araam na safara bu dee kàddu mu lay def <laughs> mais bi dee na man mi doon laa dégg moom ba ma ko déggee ni laa reewee. non non non non non non non non c'est grave c'est grave. mais mais nag yéen loolu on passe ah, non on passe loolu moom mënu ma job loolu moom dafa mel ni affaire comédien la moom vraiment loolu du ma ci wax vraiment. mais jotaal jotul kon fu mu toll nii. ngeen xoolaat maanaam yéen seen milieu bi lu waay génn wax. ku génn déet ak ña ka fay wax déet bàyyil ba mu ñëw. bu toogee fii mm-hmm. nga ne ko la nga wax nangam ak nangam la nga wax daal moom la concerné man loolu concerné wu ma man daal lii di jëmale askan bi ci kanam li li nga xam ne non non non ma ne man borom xel yi sell yi laay waxal attention mm-hmm. borom xel yi sell yi yaara suñu borom sax ba muy wax dane borom xel yi sell yi laay waxal waxuma ak dof de man wax ay dof taxuñu may wax ci lañ société bi lañ dëkk nag mais xam nga am na du dof dañ yaakaar ne ñi simmee ko def taat nee ni ci mbedd mel déedéet dof yaa ngi ci biir nit ñi jaxasoog nit ñi bu ngi naan bu ngi defee bu dof yaa ngi ci biir nit jaxasoog ñoom xam nga ne dof mënut a weesu nga naan dégg nga maam sekk euh, Seck bu dem fee bàkkaaram xoolal bëgguma wax ci loo xam ne nag ndax Wally sama doom la dama ko bëggal sama bopp man man seetkat yi man jaaxal ngeen mën a mel yéen seetkat yëpp ne Wally sama doom la waa dafa baax dañu gis ne muy def mu baax lool dafa baax mbaaxam rek ma ko may. loolu Sidy Diop sa doom. ah Sidy Diop. ah doom la dëkk bi mi ngi ci dëkk bi. doom la mais mais nu waa Seck nu mel nu mel si yow yow tamit Sidy Diop bon je sais pas waa lii xam nga nag xol la xol la yàlla yàlla mooy tànn xol. Mhm. c'est le cœur c'est Wally mon cœur c'est neex bu ma boole Sidy ak ay mbokk Sidi bokk maa Sidi yow ko yaa boole. ma déet ba ma boole Sidi ak mbokk Sidi ñëpp ay doom lañu. daal ma jur leen yaa ma ne waalo ci waalo ngeen doon wax ci waale lay wax. a rof Sidi. bu euh, loo xam ne xaw ma ko. Hmm. vraiment en vrai dire je je suis désolé. yàlla dogal. je suis désolé man ngeen mairie man li moo tax man bàyyi xool waale ba mu neex la nga naan seetkat la <laughs> yow war nañ laa xool war nañ jox la ay nga naan. da nga jàpp ne daa dof. ah oui bu dee jigéen la elle est bu dee góor la il est complètement fou il est complètement dingue. c'est ça que je dis li ma wax li ma wax nii. non non mais sànq dama ne kii maa ko tooñ maa ko joxor bi la man Soxna Fall maa ko joxor bi. maa ko ne il est fou. mais mais waroo tooñ. parce que léegi la tooñ déggoo li ma la wax kii moo ñu ko tooñ. moom mi xool doomi jaan moom mu nekk ko mën naan ab seetkat la bu dee mu ko wax seetkat Wally Seck mii bàyyi leen jàmbur wàcc leen xale bi. mais moom ku waxee waxalu ko dafa descendé xale bi sonn na ba leen jàmbur. bañ nag ba way na ko bàyyi leen jàmbur nag il est temps dañ ko war a may jàmm. avocat de Wally Ballago Seck jërëjëf yaay booy waaw.